Assalamualaikum wa rahmatulah mbokki jullit maa ngi len ziar di len wacc sen wacc way mala say mbeng Louga joge Louga Medina salam don membre ci association and taxaw ñu di ta yalla rek tax. tay ya say mbeng baye ko ci diwanu Louga nan nga def ba bokk ci association and taxaw ñu wéré ma def ci dan nako setan mu nekk sama xol bi lol waye li tax ma gën bok nak mu Mamadou Sow mi nga xamne moy president bi lugu mo mo demon ba nga xamna xel dem na ba jënd carte am membre am pour bëgg ci bokk mu ñëw sama kër mu ma say mbeng dama bëgg comme ko ñun dañuy def social yo xamna xel bu ñu gisee ko xamna xel aaju woon social ñu ciy dox ñu ciy dox ta yalla rek tax da gis nañ liggéey bo xamna xel bëgg nañ ci tabbi te jëm yalla rek tax bala mako wax ken yow la ko jëk wax ndax man ak yow ak ramata ño daan bokk di dox social di dox social ba luñ ci yalla jox ñu xamna lool la bal mako wax ken nak wax lako lolo ma ci tabil bi nga ci bokke ak legui liggéey bi nan ngeen koy améliorer fofu ci diwanu diwaanu liggéey bi ning koy ning koy taxawoo fofu moy di togal malade mentali di len sang ta yalla rek tax tay ñaan yalla mu continuer ñaan yalla mu sax ñaan yalla mu gën ko yagal ci gattanu yalla tay fan ngeen di jëlé ay fonds yo xamanteni mom ngeen koy defee. ah bu ñu dee ba nga xam ne dañuy toggal malaan mental daan ñaanuñu yàlla mu gëj na muñ sañoon bésu sa ñu teg ci toggal leen waaye dañu yor suñu kël rek yor suñu kël ba bañu am luñ leen toggale buñ paree. ñoo xamante ni ñooy ci liggéey bi pour muy mën di yomb ñooñu tamit da ngay tudd seen i ngeen ñoom it ñu gën a mën ci liggéey bi mu ngir mu. waaw waaw bi ñuy doog a commencé nii ki nga xam ne xel mooy soxna Leena hôtel italien moo ñu jëkk a jox ravitaillement ñu commencé di leen toggal togg bi ci des borom pharmacie bu ñuy wax malal pharmacie malal moo ñu wooye moom jox ñu ceeb bu ñu bu ñu toggalawaate malade mental yi ci lañ commencé nag am na jullite yàlla yoo xam ne léegi léegi ñu jàpp ci waaye nañ ci war a jàppee dëgg-dëgg jàppuñ ci noonu tey def te yàlla tax moom paasewul lii benn def te yàlla tax mënul lii koo xam ne xel bu ñu la tuddee laam nga def ci lu dul jeex boo gisee loo xam ne xel neexul yàlla nga def ci lu dul jeex kuy def tal yalla tax def la yalla tax mu munta passer li dara gën ko mag ah yan jafé jafé lañ fay jangonté buñu bëggé togal toggal malade mental day nek suñu xol ba paré day day metti ci ñun. té buñu sañon fuñ fu di leen togal ndax ku xey suba di nga añ reer ndekki naan attaaya té ñom buñu ñu ci mbalit lañ lekk da nga gis malade mental bo xam day lekk ci mbalit. ñun ñi nga xam na xel tam nañ fi mu di leen togal dafa nek suñu xol ba bokk suñu tek tek ci suñu wa kër sax tek ci ni malade mental mo mënu ko gëna ñor fi mu ne nii ba ñu sañon mi nga xam ne xel ñoo nekk Louga japp ci bañ ñu xam ne jàpp nañ ci. ñaata yoon ngeen di togal malade mental par semaine. par semaine dañu togal malade mental ñaar yoon. ñaari yoon waaw. lan ngay woo waa Louga ci ñu japp ci togg ñu fi mu gën a woowee. di leen ci wo ceeb dëwlin ba ci pass bu ñuy passalé taxi bu ñu amone auto sax ci la ñuy gënale ñu di ci fu ñu paré añ tek ci ci oto mu yobbu ñu. tay tey jii nekk feetu anniversaire association am taxaw ñu di nga ko ba diwanu Louga dëgg-dëgg lan mo la tax téw ak téway bi nga téwé lan nga fi gis ba tay mu impressionné dugg sa xol ba ba kontaan ci lool lan mo ma tax lan mo tax ma joggé fi ba Louga xana gis liggéey bu mu neex gis liggéey bu mu tab ci xol lool gis yow mi ngi ci nekk do sa guddi sa bëccëg sa lepp nga jaayante ak yalla amo lal amo ay nelaw kon nit ñi top suñu ginnaaw mu ñu lool marqué dara duñu dara duñu tiik dara ñu nit duñ ci dara waaw Thank you.